jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaare foo waay mën a nekk ci réew mi ak ci bitim réew ak ci diaspora bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen waay mbokk yi nag yaakaar naa ne démb géejawaay la woon waaye tey pikin la ba tax na tey nag soq lañ jël si fas yéene waxtaan ak moom ci combat bi nga xam moom la amal ci digganteem ak Marley numéro 2 muy samedi 14 janvier fële ci arène nationale yaakaar naa ne Gaston Mbengue moo dellu si waat ànd ak ci liggéey bi ak équipe bu Gaston production bi yëpp ñoo Makan Mbengue Abdoulahan Ndiaye boo limee dangay juum yaakaar naa ne nag sook moo war a jàkkaarloog presse bi kenn ku nekk xam ne fan yi li xew ci dëkk bi neexul moo xam ñu nekk ci réew mi am nañ ci ay mbokk ak ñu nekk ci bitim réew waaye lu si mën di am rek ñu leen di ñaanal ñi ci ñàkk seen bakkan yàlla leen saa borom xare na ak mboolem kuñ fa fekk ñi nga am ñoo ci am ay blessure tamit yàlla suñu borom may leen li nga xamante bi ne mooy wér yaram ban dellu ca njaboot ga avant tout dañuy nuyu ki nga xam ne mooy soq bàyyi ko mu nuyoog bokk internet bi fu waaye nekk ci réew mi ak ci bitim réew bu ko defee ñu jublu ci liggéey bi ñu ngi lay siyaare bu baax a baax di la bëggee waa jàmbaar ñu ngi lay delloo siyaar bu baax di wax onze bi la bisimilah inna wàll yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu ngi santaat Serigne Touba bu baax a baax a baax di waxaat jërëjëf Serigne Touba. Mhm. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba maa ngi sant suma yaay bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di ñaanal suma papa fi mu tëdd suuf sedd si kawam di ko ñaanal suma papa Doudou ture di ko ñaanal suma papa Moulay Sène di ko ñaanal suma maman Fat Ndoy di ko ñaanal suma papa Bouré juuf di ko ñaanal suma maman Ndéla Diouf ak Adama ak mbay seen ñëpp xam nga maa ngi ñaanal képp ku dëddu yàlla na la suñu borom yërëm te xaare la aljana ci barki yonent bi ak soog bii ñu gis barki Dembo Ndiaye xam nga mu metti torop ñun ñëpp am nañ ci ay mbokk ndax tey ñi si ñàkk seen bakkan bari na ñu ngi leen di ñaanal yàlla jégal leen seeni i barka si yërmandeem xam nga di ñaan suñu borom ñëpp ñi si tëdd am ci ay blessures yàlla wéral leen ci barki yonent bi waaw di masawu ñëpp moo tax xam nga mu demee nii sax gis nañ ni ko marle defee démb tey tamit ñu defee ko noonu parce que xam nga dëkk bi neexul mais ñu ngi santaat yàlla bu baax baax a baax waaw di ñaanal suma benn kilifa way juróom bu jigéen dafa làkku muy job social muy nit ku baax ku yàgg sonn ci man sonn ci mbëru Grand Yoff yëpp kooku suma kilifa la maa ngi koy ñaanal yàlla na saraxam yàgg ci loxom di woo suma goro suma xarit Doro Gueye maa ngi koy woo ci combat bi bu baax a baax a baax ak waa parcelle gépp comprendre nga mm-hmm. ay ñoom Go Faye ñoom Demba mm-hmm. xam nga ñoom Laay Gueye mm-hmm. ñoom ñëpp ay frère Doro Gueye lañ ñoom Ndey Mati xam nga ñoom ñëpp di ñaanal famille Ndioufène di ñaanal suma famille di ñaanal sumay frère di ñaanal famille Touré Touré yi tamit xam nga fa la jetle am soxna. mais ñoom dañ may taxaw macha allah ñëpp famille Touré Touré yëpp barke Seydina Mouhamed dañuy sonn ci man bu baax. xam nga pour ñoom man rek maay mbër Sénégal. te niñ mel ci man noonu lañ mel ci ñëpp. maa leen ñaanal suñu borom defal leen jàmm ñoom ñëpp yàlla delloo leen coono bi ñuy daj ci man. Mhm. di bëggee suma boo yëpp. comprendre nga booy bu mu amee combat duñ lekk duñ naan. duñ tal dara. man ñoom la am aw ma ñeneen ñu dul ñoom. comprendre nga maa leen di sant bu baax di sant suma nijaay jibi joolaar di santaat ñëpp nag. bàyyiwuma kenn. comprendre nga di gërëm nag suñu monsieur le maire. maire de la ville de Pikine Ablaye Timbo. gis nañ ni ñuy taxawoo bu baax muy man Boy Niang Eumeu Sène ba ci mbër yu ndaw yi nekk Pikine ñu mbër yu ndaw yëpp jooy ñu dara ndax yow. ak Isaaxa Diop. Modou Gueye président AS Pikine maa ngi koy woo ci combat bi bu baax parce que combat bi ni dafa am bor bu ñu war a fay waa pikin kon waa pikin yëpp dañuy génn taxaw comprendre nga kon ñu ngi leen di ñaan ngeen jàpp ci mobilisation bi jëndal ñu ay bologu billet ñun ay mbëru amateur lañ jooyu ñu supporter bu ñëw esat mais tey dañoo am ay boo yoo xam ne dañoo nekk suñu ginnaaw sonn si ñun trop te amuñu ay moyen ñi si mënal seen bopp bariwul comprendre nga kon ñu ngi leen di woo bu baax ñu ñëw jàpp ci combat parce que combat bi dafa am solo suñu carrière comprendre nga di woo keneen président Modou bu AS Pikine ak président Aziz président ASLM comprendre nga maa ngi koy woo Waly Seck suma frère moom day jàpp ci sumay affaire maa ngi koy woo ci combat bi baax di woo Bass di woo Pape Abou Cissé di woo président alin saw borom Kër masaar maa ngi woo Lum Ndiaye ñooñu ñëpp sumay frère la ñoom ñëpp teg naa lépp ci loxo la du ñu ngaak di woo nag kenn koo xam ne suma frère la suma deret la comprendre nga kooku suma frère la suma deret la président maa ngi lay woo nga ñëw jàpp ci combat bi bu baax a baax a baax a baax a baax parce que combat bi combat bu ma ñor la. comprendre nga maa ngi koy woo bu baax moom xam na ki may waxal moom président. comprendre nga maa ngi woo waa AS Pikine yëpp Jazz AS Pikine maa ngi lay woo ci combat bi bu baax Mortala duñu ngaak ak Bousso suma freer xam nga combat bi ñu si pare pour jàpp si bëri na kon ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp ci combat bi yooyu lii daa mënul ñàkk nag ngeen jégal ñu ko waa parce que bis bi ñu la mm-hmm. dañoo bëgg bis bi taaru dañoo bëgg promoteur bi du rëccu ñu doon tëggee comprendre nga ay ñoom buubaa ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci combat bi yooyu di gërëm suma frère Mbaye Pro mm-hmm. ku sonn ci waa Pikine la du soog kese ñëpp lay taxaw ak waa écurie xam sa cosaan yëpp gis ngeen ni écurie bi mel mm-hmm. bàyyiwuñu kenn suma papa Malick Ñing gis ngeen ko fi léegi kooku moom duñu wax si moom sax ndax lu ñu doon tey moom am na ci part de responsabilité bam ñu waree taxaw taxaw nañu kon ñu ngi koy ñaanal père yàlla na suñu borom guddal sa fan ak moo coach suñu entraîneur ñoom lëppi ñoom Vieux Touré gars yi dañuy taxaw bu baax ay ñoom Zoro ñoom Alaaji Sey ñoom ñëpp parce que dañoo bàyyi seen i yitte ñëw di ñu taxaw te ñun ñëpp ay morom lañ ñoo bokk génération ñu ngi bëri gërëm ñëpp di gërëm tamit kenn si man muy Kandji production Kandji nit ku baax la combat bi jàppale na ma si bu baax waaw jooy ma dara ndax moom lu ma ko woo bu ma ko waxee danaan ma ñaata nga soxla kon loolu yombul Kandji bàyyi naa la ak Serigne Touba mi ñu bokk ci barki yonent bi mhm. macha allah mbokk yi am na solo suñu confrères yi fi nekk tamit ku ci am question rek mu ñëw bu ko defee mu gën a yaatu soq yaakaar naa ne fi mu ne nii moom wuré wa dem na këng waxi mag dem na ndañ tàlli tey la jeudi suba la vendredi samedi a nga yoreel bor boo xamante bi ni waa Pikine baaluñu la ko ba samedi nan nga leen fas yéenee faye bor bi ak ki nga ko sekkal. waaw Olof Ndiaye dañuy àtte bor fay. waaw loolu da la wax. waaw comme maa amee la bor kay. Ah. damay fay par force. ci ki koy fay. barke suñ tuubaa Mbacke jarul sax wax ji di bari. ah combat bi bërelu ko kenn suma bopp laa koy bërel. waaw. parce que combat bi nii képp ku ma ci mm. conseillé rek xëy na da bëgg loo wax rek ak xër ci soq. mais combat bi xam naa li muy représenté ci suma carrière. Mm-hmm. te xale du juum ñaari yoon. waaw ah, loolu la gars yi wax de. waaw kon kay combat bi jarul conseil. ok jarul conseil Abou bala malaa jox ki ngay jàkkaar lool njëkk la ci làmb xaw ma kan moo ëpp expérience di boo xamante bi nii macha allah mën naa bëri bëri ba foo ko takk paase na ko day mel ni ku lay ragal te ragalu la te saa bu àggee ci kaw jël dina am ba yi di koy bàkkee marle ay ci luur. mais expérience doole da koy tëj moom bu ëppee expérience moo jiitu ci làmb moo ëpp expérience mais bu dajee xale bu way ànd ak xelam ba pare fanaanoo mer war a fay bor. Hmm. loolu mënul yomb ci moom de barki maam Serap Fall. Hmm. ay ca abu ñëwal ak yeneen gars yi ku ci am question rek. Hmm. dañu déglu toujours ci li nga xamante ne mooy communication Sokh nee na Marley dama lay jaay doole jàpp la daan la est-ce que Sokh ndax loolu mu communiqué la fas yéene bëre Marley dafa ñëw fas yéene pour ñëw jaay ko doole jooju jàpp ko ci daan ko est-ce que Sokh loolu fas yéene def ci boobu non ci mu koy neex rek moom moom lay neex rek Marley maanaam bu buggee sax mun naa ko bañ a jaay doole mën nañ bëre ma daan ko ci bëre abu mën a bëre mhm. maanaam parfois yoonu ndaw du ñàkk yii nii mais man damaa gëm ni champion laa te incha allah damay nekk champion ci làmb. loolu su may waxu démb la du sama waxu tey ba ma nekkee ci ay série de victoire laa ko daan wax daanak daanu sama yoon néew si sama objectif si làmb nekk champion la te ay daan daanu du ma ko xañ juge naa ci combat ñàkk ko damay demaat ci combat am ndam continuer soma bi incha allah. incha allah nga yàgg dugg géejawaay ñu gis ne Moussa fa am defet biir géejawaay lan moo waral choix parce que da nga fa ne ndax fa fa la mbir mi di xoyom xamee fa la mbir mi yombee ci yow. waaw fa nga dooree. non chaque jour dama koy wax ci biir ay wax mais moom bàyyiwu ko xel. man géejawaay ñi ma fay bëreel ñëpp bi ma leen di daan ñoo téye lamb ci sen loxo. seen génération. Mm-hmm. Rambo bi mooy bëreeg moom. ku ne gis na ni mu doon def ndigal mm. bi may bëreeg mm. moom ndaanaan la pambaay mm. bi may bëreeg moom ndaanaan la maara ndaw bi may bëreeg moom ndaanaan la masalla bi may bëreeg moom ndaanaan la keroog dama dégg sax Ibakan journaliste ni Marley am na trois victoire Géejawaay soq am na trois victoire Géejawaay Marley am trois victoire Pikine man mbaru mbëru Géejawaay laa daan ak Marley muy set ah. incha <laughs> waay daa mel ni bu ma ko déggee bu ma ko déggee nawloo woo ci marle ci bëre ci xeex te daa naan kullu fadrin mooy marle soq est-ce que umpale woo gaay aha non marle moom waaw marle waaw coow lay bari rek mais marle mënu ma koo ñàkk nawloo man mhm. ndax bëri naak ay ndaanaan bëri naag ay champion mhm. man bu ma ñàkkee nawloo marle rek mooy ñàkk naa naw sama bopp ci bëre bi ci bëre ci lépp ndax doomu aadama la mooy doomu aadama. Mm-hmm. muy jàmbaar may jàmbaar. Mm-hmm. mu am preuve yu mu def ci làmb ma am preuve yu ma def ci làmb. Mm-hmm. kon man bu ma ko ñàkkee nawloo rek mun naa bañ a nawloo sama bopp. sama nawle la. bu doonul loon sama nawle làmb du ma booleeg moom. sampion la ndaanaan la. mais dama bëgg a xam ni. Ah. mag mu yàgg ci yoon bi ak xale buy doog a yegg si bëgg a nekk champion bokkuñu. marle temps bi mu def ci làmb. Ah. man soq bu ma ko defee ci làmb màgget. kon soo ko day confirmer li ñaan l' expérience face à la jeunesse. non loolu par force la bu bisu làmb ja bu bisu làmb ja Marley dina gis xale bu am kattan ba pare mën a bëre. mais Sokh dafa mel ne yaa ngi Marley da ngeen a xamante parce que damay gis ba seen i biir sant da ngeen bokk benn nit koo leen di gërëm ci biir làmb ji lan la. non dañoo xamante Marley wax naa ko dès le départ boobu ba léegi maa ngi koy wax. Mm. Marley suma waay la. barki maam Seera Fall man du ma wax kenn yàlla ngi lay nuyu te gisuma ko. macha allah Marley man ak moom bu ñu jàkkaarlooyee day saf sap. bu ñu waree bëree tamit day saf sap. mais loolu taxul ma naan nit ku bon la wala xaw ma ko wala musuma koo gis. su ma waay la yàgg na ñëw bokk ay milliers di toog di waxtaan bokk étage ma jale suñu grand bi fa dëkk muy Pape Gueye. dañ doon bokk benn bool di reerandoo. kooku da doon wax naan ñu yéen ñaar bu ngeen di bëree man xaw ma nu may def. mais mënut a ñàkk grand frère ñu nag ñu ngi jégalu <laughs> ay xale lañ lii suñu métier la Marley Guédiawaye lay représenté man Pikine laay représenté mm. comprendre nga tey li ñu ko fay moom am na lu mu ko jëriñ man am na lu mu ma jëriñ mm. kon dañuy bëri rek mu jeex après du yàq dara suñu diggante mais Marley ndaanaan la champion la gëm naa ko mais fi mu ma jëlee moo baaxul ñëpp dañu da nga diis si combat bi ñu ne Sokh dafa jël poids poids bii nga indoon compte franc wala da nga wàññiwaat poids bi wala nga ko jokkuwaat bala jàmm ñi xam Sokh dëgg bu ñu gisee Sokh dinañ xam Sokh ndax diis na wala diisul macha allah combat bi xam nga nit du jëm ci ger di waxe sa secret di wax ah. naan lii laa liggéey ah. amul sens père Max Mbargane da koy wax liggéey naa buy bëgg dee amul ah. njëriñ boo simee koo rek mu feeñ waaw kon moom li mu war a préparer ak staffam préparer na ko man li ma war a ak suma waa écrit préparer naa ko suñu xel dal na bu la 14 janvier man mosumaa simmeeku ci stade bi ñu yërëm ma te duñ ma mës a yërëm ci làmb bu ma mm. demee ba tollu niveau bu may simmeekoo ci làmb ñu ma yërëm naan ndeysaan mm. pourtant amoon na doole damay bàyyi man xale laa gudd fan dong la nit ñi di jooy ci man mais du ay réeg ay am doole man lu ma def am doole barki maam Serafal man ci famille Goliath laa bokk ah, man famille bi ma bokk ay Goliath lañ barki maam Serafal bu ma demee Casamance dañ may xas ni yéen ñëpp kenn jëlu ci seen papa hmm. comprendre nga hmm, hmm. kon sant nañ yàlla bu baax am na lu ñu yàlla may sante nañ ko suñu borom bu baax du suñu njàmbaarte nag. Mm-hmm. yaa macha allah yaakaar naa ñaari question laa dese seen làmb day nekk live pay ci seen affiche point com beneen question bi mooy dama la fekk si kaw euh, nga ne 9 points la ñu waa Pikine laaj booy ñaa ngi ci digg géew bi dina marqué kay tey 3 points combat ba jeex mu marqué 3 points ci biir géejawaay yow ci biir Pikine ci biir géejawaay yow nga war a dëgg ma sa diggante ki nga xam ne mooy Marley xaw xaw ma nan lay demee muy 6 points ki ci des Ama Baldé des la nga waxoon ba tey yaa ngi ca wala déet parce que Boy Niang moom 3 points am jàll na. <laughs> waa sant yàlla loolu moom mosuñu see jóg ndax nit moom gëm-gëm rek ngay demee ba keroog suñu borom di ñëw ak ay ndogalam. Mm-hmm. ñun nag ay jaam lañ. du ñu xëcc lu gënul si ñun. ñun li gën si ñun rek la ñuy sàkku ci borom bi barki maam Serap Fall. Mm-hmm. billaahi wallaahi wa taalaahi li ma gëm. Mm-hmm. man li ma gëm man soq laa wax. trois points yi ñu laaj ñun ñëpp ku ci nekk dina marqué bosam. Boy Niang marqué na bosam ñu ngi koy félicité. di ko ñaanal mu doon ay ndam ci kanamam barki maam Serafal. ndax tey bis ba lu nekk def nañ ko pour mu am ndam suñu borom suturaal ñu am nañ ndam yàlla nag moo ñu may ndam. du ay waxu soq. du ay waxu kenn kuy ñaanal Boy Niang suñu borom moo nangu. ni Boy Niang mooy daan Balla Gaye ñu ngi di ko wax ni ko moom champion la. Mm. def na lu nekk ci làmb. mais ki ka daan mun naa daan ku nekk ci làmb ñu ngi koy félicité bu baax man moom samay trois points ci kàttanu yàlla dinaa ko man loolu la ma àdduna laaj waa Pikine laaju ñu ma ko de waaw man trois points yi waa Pikine laaju ñu ma ko àdduna ñoo ma ko laaj mais Moranta waaw est-ce nañ xaar Marley Sokh jaaga bu xamante ne xeex waaw am njaay joxo ji ñu dem aro di faju di ñëwaat non loolu loolu loolu loolu mënul am ci combat bi lu tax non non parce que Marley du fa xaar loolu Marley musta xeex Marley day làmbaatu déplacé wu rek daw yooru jëli tànk wëri leneen kon Marley man xam naa ne Marley sampul jaaga li wér te mooy. Hmm. fi ma tegoon sama tànk ci départu combat bi ba tey falaa ko teg. ko si kattanu yàlla ak yonent bi. Hmm. bu arbitre bi sifflé ma woon Marley ni ko maay xale maa war a diriger maa war a bëre maa war a daan te ndam li barki maam Serafal maa ko ko gën a soxla fuuf Marley ci ndam la jóge man nag nekkuma fi yàpp nit ñi ñuy topp sama ginnaaw du duñu lekk duñu naan. Hmm. ma ñàkk bés ñëpp gëm ni yàllaa ko dogal may ñëwaat di wane benn ñàkk fayra ci làmb ji. kon da nga pare pour dox ci combat de diriger combat bi. def ko. ak lu mën a xew. Hmm. trois points lañ ma laaj te dinaa ko indi bu soobee yàlla. ok di ko indi nga nga yëkkati jotaay bi lan ngay wax sa supporters yi nga ñoo nekk ci diaspora bi pour ñu jënd ko yi ci seen affiche point com ndax làmb ji pay am na télé yéen nag yu koy maye fii ci Dakar fii ci Sénégal. waaw sook mbaru diaspora la. Mm-hmm. loolu moom ni ko nit ñi di jëndee ñoom xam nañ ko ndax sax làmb Sokh pay-per-view lay nekk. te dañuy gis ni mu demee. ñu jaar dañuy di duy stade bi. <laughs> Souleymane Ndiaye. Ah. Souleymane Ndiaye kooku suma kilifa la. Mm-hmm. suma deret la ñoo bokk dëkk Casamance man ak moom. Mm-hmm. nee na ma Sokh dinaa la jëndal diis bologu billet. macha allah te Ablaye Timbo ñëwagul. Rama Maki ñëwagul. Oumy si sama jigéen ñëwagul. Ablaye Diop monsieur le maire bu ginnaaw raay ñëwagul. Pape Ñambe suma xarit. ñëwagul. Mbaye Toldo ñaata bee lay jënd. non Mbaye Toldo moom suma waay la Mbaye Toldo moom néew na ma bëre lamb te lekkuma ñàkkam. sak suma lamb Mbaye Toldo dina ma yónnee xaalis. moom ñoom Diaz AS Pikine waa Torino yëpp waa itali waa Paris ñëpp. xam nga ak waa Maroc. dañ may jàppale ak waa Suisse ah. côté mobilisation la wax de parce que dangaa ngaa ñëwoon tëj arène nationale ba le 19 juin yow ak sa nawle nga war faa ñëwaat ñëpp ne da nga koo tandu. mais arène nationale soq moo ko njëkk a tëj. Ah, ah, waaw journée bu nekk am na arène nationale. Ah, Sokh moo njëkk a bëre arène nationale ñu tëj ko ba ñu si biti taxaw di sànni ay xeer yor seen billet mënuñoo dugg. Eh, retour bi. waaw kon ñun <laughs> ñun ñun jooyuñu loolu. man li may wax chaque jour benn wax la. man suñ Tuubaa laa gëm ginnaaw yàlla ak yonent bi yaakaar ko. barki maam Seera Fall man nit ñi dama sekk ak ñoom jàmm. woon ñëpp taalibe man aw ma xaar ma yàlla ak benn doomu aadama man jooyu ma ku ma ñëw si porté si stade. Mm-hmm. man nit ñi sekkuma ak ñoom affaire lamb man bu dul làmb foo ma fekk damay toog waxtaan damay kaf damay ree damay duggante kër nit ñi damay lekk ay kër jàmbur comprendre nga li di def a cent pour cent man mënu man taalibi suñ Tuubaa la daw ma mm-hmm. kenn ku ma wut si nag ma téel a ak yow mm-hmm. ngir jëmmi suñ Tuubaa mm-hmm. kon sant naa yàlla bu baax comprendre waa li may wax mooy maa ngi gërëm ñëpp di gërëm Moussa Ndiaye suma frère ak Malick ñàngoor gi man tey xam nga su ma toogee fii nii man man damay fier sax di gërëm ci ñu yorul dara di sonn ci man barki maam Serap Fall bu ma sañoon du ma gërëm benn borom xaalis buy sonn ci man comprendre nga ay Ibrahima jàlloo comprendre nga ñu naan ko Henri borom Brioche doore hmm. su ma waay la ay ñoom aada café waa tali bees ri afiyab yëpp ak ginnaaw raay hmm. bi ma dëkk dañuy sonn ci man di gërëm su may dëkkandoowu yaay ñëpp maa leen di baalu àq xam nga ñëpp maa leen di baalu àq di nuyu ASC yi nekk ginnaaw yëpp lu ko dalee jàmmoo ginnaaw raay jokkoo manko déggoo ak ASC bu bees bi xew si jamono sips waaw xam mooy loolu xam nga di gërëm nag di gërëm di gërëm di gërëm Jike Diouf yaay Bamba ak Mouhamed maa ngi koy gërëm xam di gërëm ay ñoom Ibrahima ñoom Nabu di gërëm suma frère Jetli borom États-Unis maa ngi koy gërëm bu baax di nit ku baax di gërëm suma lépp Sofi Touré kooku dafa sonn si man tamit xam nga man famille Touré daal mention spéciale dañuy sonn ci samay affaire ay ñoom Mbara. Mm. Mbara tamit suma waay la suma lépp la day sonn si man comprendre nga maa ngi gërëm trop yaawu jàll di gërëm sëñ saaliw borom jàmmoo xam nga di bëri gërëm ñëpp gaay mm. maa leen di wax ni leen bis bii ah. du yomb te du mus yomb si kattanu yàlla man soo sook maa leen ni bu samdee mu jëli trois points yi ñu ànd ñibbisi si kattanu yàlla di woon ak suma waa dëkk waa Gàmbi maa leen di woo bu baax di ñaanal suma rakk suma xarit building suma doom maa ngi lay ñaanal suñu borom defal la ndam bu sedd guy ci barki yonent di ñaanal nag naaru sogaas naaru sogaas suñu grand ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko ndam waaw mu ngi bëreeg nag booy bu booy bu boo xam ne champion la muy baaba jaxal naaru sogaas da ko may chance mais tamit ku am taalibe la comprendre nga mais naaru sogaas lañ bokkal écrit mooy suñu grand moom lañ sañ ñaanal ndam di ñaanal suma rak darso ñu ngi koy ñaanal ci parcours bu mu nekk yàlla bu ko cat kal di ñaanal Batista suma rak di ñaanal Yékini Yékini moom kooku moom mention spéciale quoi moom jàmbaar la te sampiyon la mais day sonn ci man bu baax moom lu ma xew la billaay da Kaolack la nekkoon mais dafa bàyyi itam yëpp paas ñibbisi ndax suma combat mm. fils de Badlen mm. comprendre nga moom suma waay la moom mooy Yékini moom fils de Badlen la nit ñi gën a xam <laughs> moom day sonn si man ci lépp nag day dem ci ay sëriñ ñaan lu indi jox ma ni ma am ak tas yaakaar moom itamit daa am combat champion la ñëpp xam nañ ko mm. ak ëmma suma rak maa ngi koy ñaanal suñu borom defal ko ndam bu sedd guy ak xaadim soose ñu naan ko caatu pikin waa caatu pikin moom champion la ñu ngi koy ñaanal tamit suñu borom defal ko ndam di féliciter prince ah. prince suñu rakk la moom it tamit di jàmbaar comprendre nga mm. di ñaanal lengs suñu borom defal ko ndam di ñaanal njaga caam suñu borom defal ko ndam comprendre nga di ñaanal nag suma rak soq bu ndaw jàmbaar la mu jugee ci bis suñu borom bañ maa ngi koy ñaanal xam nga yeneen combat yi nekk ci kanamam yëpp suñu borom defal ko ay tawféex comprendre nga maa ngi bëggee suma mafia bi yëpp ñoom Madike ñoom moo maa ngi leen di bëggee ñoom Tala S comprendre nga ay ñoom Moussa Niass Moussa Dërëm booy ay Zoro ñoom ñëpp ay Paulis Demba Diaga même ba borom parcelle kok suma xarit la suma waay la kok musul xaddi ci soq maa ngi mafia bi yëpp comprendre nga waa Saalu Odo su ma mafia bi du ma leen fàtte mukk comprendre ga ak waa Saalu Muntaga gars yi mafia bi yëpp maa leen di gërëm ñoom jibigee ak ñëpp. waa daan gis nga tamit di bëggee di bëggee di bëggee tamit ñi nekk ci kaso bi. ñi nekk ci kaso bi suma mafia bi yëpp maa leen di bëggee suma doom suul sama combat bi sama ginnaaw la nekkoon hmm. bi fekkeewu ko dafa am ndog-ndog ci diggante bi ay ñoom lam tooro ñoom sumay waay lañ ak am am sata combat maag Franc maag moom ñoo ànd préparé ko ba mu jeex tey caabi da ko féete ginnaaw ay ñoom Seydou Ba ñoo fi nekkoon di ñu jàppale ay ñoom coach ay Paate Balde ak Birahim Birahim moom it suma waay la suma lépp la àdduna xam nañ loolu tey ñun ci lii rek lañ mën ah. tey bu ñu amoon kattan bu ñu leen jëlee fee ñu nekk dañ leen di jëlee indi leen parce que su ñun lañ bokk hmm. mais ñu ngi leen di ñaanal baax waa ay ñoom usu café borom Seras di bëggee waa Seras yëpp Seras su gars yi nekk foofu ay ñoom xaa xaadim jal ay ñoom ñàngoor gi ñoom ñëpp maa leen di bëggee man mafia laa am boo xam ne mooy lool ak sëñ Moussa sopp nabi maa ngi koy woo ci combat bu baax sëñ Issa sëñ Issa nabi yow maa lay woo ci combat bu baax comprendre nga Bousso ah, Bousso cinq bologu tike laala sas yow maa ngi xaar nag bolog yëg lépp kan mooy ñëw dimanche kan mooy bàkku si dimanche non incha allah dimanche damay ñëw bàkku si stade